lu ëpp ñaari fukki at ba léegi Castor ni lay dëkkee saa yu nawet jotee tali bu fees dell ak ndox lañ fi nemmeeku mu gàllankoor bu baax dem bi ak dikk bi lor askan bi fa faree non man bu mu juddoo ba tey di lay mel am na benn euh, site bu mu sa ñëw fii mus naa leen expliquer cas bi loo xam ne depuis sunu maam yi la ba léegi mënuñu si am solution. Euh, canalisation bii nekkoon fi bi depuis temps colon la quoi depuis ay Senghor temps colon depuis dans les années soixante la fi nekk mais ñeneen yeneen nguur bu fi ñëw yëpp ñu ne leen dinañ leen expliquer quoi ku ñëw wax la yenn autorités yi da ngay ñëw comme surtout sunu maire bi. da ngay wax mu naan la euh, waaw li yëg li yëg li maire bi def dara. Boubacar Camara di ab jaaykat bi fa fare di dikkat ci li nga xamante ni li ni mel amal na ko ci liggéeyam. ñu bari fii place yi yëpp dañoo tëj liggéeyuñu loolu di yoon tamit clients yi ñëwuñu clients yi ñëwuñu non tey moom liggéey amul damaa ñëw toog gis ngeen ma fi fekk damaa toog. mu nekk li leen jural ay jafe-jafe yu bari rawatina ci wàllum wér yaram. instant boo yëpp dañu arbis booy yëpp dañ feebar ah dañu arbis booy dañu wokkatu rek léegi seen yaram yi day mel ni ku am ay sidit fekk ay arbis la ñun temps booy xam nañ ko ñun fii la ñaan fee fii piscine la parce que soo gisee ndox bi du ko dul fii arrêt bi ngay gis ni ñun ñoo ko def ñun ñoo jël koñ bi tabax ko benn un mètre pour ndox bi bañ a mbëkk mais bu yàgg ma ndox mi dafa daan dugg ci biir ba fii day fees del askan bi fa yeewoo nag di dundee yaakaar ginaaw bi ñu leen diggee ay matuwaay yi mëna saafara linimel ni ñu ngi koy xaarandi bu baax ndax doon na problème bu yàgg ñu ngi ciy woo nguur gi mu gën ci taxaw